booy lu toll entre Eumeu Sène ak ki nga xamante ne bii mooy euh, Tapha Tine la géant di Bawol. waaw Thierre combat boobu dafay combat boo xam ne peut-être xam naa dinaa ci wax quoi mais dafa am lu bari xam naa di nga bëgg ma wax ko mais duma ci mën a dugg sa parce que xam nga mënoo di dem guerre ba pare di wax sa sa sa say arme quoi mais nekk na combat boo xam ne dama bëgg a wax ne supporters yu Bawol Bawol yëpp nañu jóg jàppale Tapha parce que làmb tamit supporter am na ci solo trop mu sentir ni ay ay mbokkam ñu ngi ci ginnaawam donc tey dama bëgg ñoom ñëpp ñu mobiliser wu ñëw seetaan ci làmb ja supporter seen mbër ñu ñaan yàlla rek yàlla mi am ndam yàlla na may tafaatin ndam waaye nag tamit aussi tafaatin mu bàyyi xel rek ne Ama seen mi ngi bëre mbër bu dàq bëre ci ci làmb ji xam nga teer làmb dafay mbër yi kenn ku nekk dafa am mënin boo am mënoo boolem lépp nga mën ko da ngay mën a lële Balla Gaye li muy bëree bokkul ak Ama Ama Baldé li muy bëree Ama Baldé li muy bëree bokkul ak Ama Sène li muy bëree kenn ku nekk da nga am loo xam ne sa fort la am loo xam ne sa sa faiblesse la donc Ama Sène da da ñu bokkoon nekk équipe nationale man ak moom xam naa ko bu baax géewal naa ko mu bëree mbapat ba tàyyi avant muy ñëw ci lam ñu mun naa wax ne génération boobu moom laa gën a xam que ñeneen ñi parce que dama ko géewal mbapat dama ko géewal mbapat ñu ànd nekk équipe nationale donc kon Ama Sène xam naa mun bëreem alors te mun naa wax ne tamit respecté na làmb parce que actuellement nii boo gisee boo xoolee ci làmb ji moom moo Gris Bordeaux ñoo ci mag moo Gris Bordeaux ñoom ñaar ñoo ci mag te boo xoolee mi ngi prouvé ba léegi nii son dernier combat da ko daan contre Bombardier kon Tapha bu mu gis ne ama seen mooma mag dama war a ñëw bëre jàpp ko daan ko na ko teg ci yoon quoi parce que ama néewul doole te te dafa yeewu ci bëre ama seen tamit na xam ne Tafatine tamit mbër la boo xam ne Tafatine bi Balla daan après combat yi mu ci teg ñu daan ko boo xoolee depuis contre euh, kële nu mu tudd contre Yékini Junior ba léegi gis nañu changement boo xam ne dafa am na changement ci xeetu bëre bi ci xeex bi ak euh, ni muy concentration bi muy def ci làmb ci làmb donc nekk na combat boo xam ne combat bu neex a ngi noonu tamit aussi combat bu doy waar ngi noonu Taphatine malgré moo gën a nekk booy mais dafay bëre mbër bu yeewu mbër bu yeewu lay bëreel buy liir combat boo xoolee combat am ak Bombardier bi ko Bombardier balee mu jàpp ko daf ko xañ nga ngeemam Bombardier yootu na pour jàpp daf ko xañ mais Bombardier bi mu ko balee noonu yaa ngi gis ama mi ngi peese loxo bi pour loxo bi dañ bi loxo bi dañee rek dafa asséné automatiquement faqat ko ama ama mën na bëre tànk xam ma gars xam nañ ko wala déet xëy na peut-être làmba ji def na ko fi sax Oussa Sow d'ailleurs def na ko Oussa Sow ama day song day bëree tàng mais ñaar ñu ñoo ñoo ñoo ñoo gën a nekk ci làmb ñoo nekk gën a nekk ci bëre kuy song ak mën tànk surtout kuy song day am avantage toujours boobu mooy ëpp lu muy daanu ko ku dul song mbëru songkat mooy ëpp avantage di daan ko song parce que boo songee nit jàpp tànkam benn tànk la dese yow nga yor sa ñaari tànk téye benn tànkam donc tey may wax ne Eumeu Sène combat boo xam ne daal combat bu neex na bàyyi xel na nag ñu ngi waaj ñu ngi waaj ñu ngi waaj ñu ngi xam naa ne tamit moom mi ngi waaj Tapha tamit seen conférence de presse ba gis naa mu xaw a énervé tuuti non si maa ngi toog di ko seetaan mais gis naa ne dafa mer bi ko Eumeu waxee ne ko maa la doole dama lay duma dama lay daan gis naa ci kanamam ak na ma gis ne kii énervé u na te mënoo mer ba pare de sa xel mënul nekk mënoo mer ba pare de sa xel soo meree amatoo xel donc na bàyyi xel loolu warul mën a taxaw Eumeu Sène naan ko maa la ëpp doole muy dugal loolu ci boppam Eumeu seen fan lay jaar bu doole Tapha Tine ah non mais kon Tapha Tine yow sawaay kon Tapha Tine yow mag la nga sut ko ndaamu mën na ëpp doole njool loolu mënul nekk ah, njool rek doole la sawaay yow tam donc tey waru ko wax loolu muy dugal sax loolu ci boppam dèjà mi ngi koy pièce mi ngi dugg ci pièce bi mu koy lalal parce que bëgg na mu énervé ñëw bëri du bëree xelam mu daan ko te loolu nag dinañ ko ko wax mu bàyyi ci xel. xam nga xam nga Eumeu Sène su ma juumalee sax yow Eumeu Sène bëre ngeen am nga foola njaar mu daan la tey xam nga capacité yi nekk si Tapha ndax tey Eumeu seen bi nga xam ci wàllu daan ci xeetu bëre ndax Tapha Tine mi nga gis am na capacité bu daan Eumeu Sène wala pour def Eumeu Sène lu ko mbër mësul def. waaw ça dépassé na muy aborder combat bi rek xam nga tey mbëru njool ak mbëru ndaama yow waroo mbëru ndaama bi muy dugg sa surface di la jege da ngay bëreeg moom combat distance dafa moo sut moo sut loxo war na mun toujours ci combat bi muy garder au moins un mètre diggante te loolu mënul ñàkk sax loolu par dafay am. bëgg-bëgg Tapha Tine lay nekk combat distance mais Eumeu Sène miin daa ma combat rapproché moo koy mais par force loolu dafay am xam nga lu tax kii gauche la kii droite sorewaay bi moom tànk yi mën nañ jege ñi mais seen seen seen jëm yi lay so lay soree kon donc il faut loolu mu am te ci côté xeex bi dafa am na ay gauche ay directe mooy li ma lay wax tànk sànq ci ci ci ci ci Modou Lo ak Boy Niang Modou ak Boy nya mbaru njool normalement ndaame bu ne bëreet war nga taxaw freiné ko mais bëgguma ama euh, ci biir combat bi euh, Tapha Tine bàyyi benn yoon Eumeu seen jàpp ngemam te moom jàppul Eumeu li nga bëgg ci combat bi ñaar yii la dama la koy wax da ngaa bëgg a jàpp te waajuru jàpp li nga bëgg mooy trisé trisé li nga defoon Lac de Guiers ak li li Ama Baldé defoon Tapha loolu rek ngay wër te jàppal ne loolu moom sa doo ko mës a am duñ la ko may duñ ko ko may de. tey bu ñu xoolee keroog ko ba arbitre bi génnee suñu diggante na sànn bant 5 mètres xaw ma 3 lu ko may rek su ma dalee sa kaw du baax. waaw waaw waaw bu koy def tamit na ko def ak prudence tamit quoi parce que ama seen duñu ku ñuy ku ñuy def noonu tamit quoi. ama seen du koo xam ne da ngay ñëw saax saaxee ko noonu mbër parce que mbër la boo xam ne dafa mbapat de ama dafa mbapat ah mais attends ma ma ma wax len yaay dégg taay ñu naan bi muy bëreeg ak mbay juuf amna mbapat mu doon mbay juuf euh Farba Ngom mo kondi won woon dé du dégg lolu sama mbapat la won ma tegon mbapat bobu sur bobu ñoo ñu tegal leeg Mbaye Diouf day mbot mbay juuf mbapat bobu nonu mako tegon bobu nak euh Farba Ngom si wut ni ba nit ñi xam ko dégg na sax giri di ko wax donc tay kon am xamna ko bu baax en plus bëri nañu man ak mom bëri nañu man ak mom temps boobu làmba temps bi mu ngi nekkoon quarante cinq minutes bële nañu quarante deux minutes mu des trois minutes ci laay force parce que santiroon naa ne na ci force bi ci la ma yoxoso euh, pakate ma sukar bi ma mooy waral ne tafa kooku ko mën a bëre la warul may Eumeu Sène benn yoon mu koy féete suuf waru ko ko may benn yoon warul may benn yoon Eumeu Sène di jax di di ko jege da ko war a may distance bu ñu jàppantee lu am a jàppee moom dafa war a jàpp te te ma lay wax dara gis nga poids lourd warul di warul di bëre jàppul déedéet poids warul bëre te jàppul poids lourd balaa ngay bëre da ngay jàpp xam nga tey boo gis xoolal li ma la wax rek combat yu bari ñu nekk ay poids lourd saa bu ñu demee benn côté rek du ñu mën a ñëwaat xoolal li ma la wax rek poids léger nag mën na dem ñëwaat pour ñu jóg problème la toujours ki gën a lese mooy mooy gën a gaaw a jóg la preuve contre Balla Gaye <coughs> Balla Gaye Eumeu Sène poids bi Balla jëloon moo tax bi bi ñu demee suuf ama ama ama njëkk ko jóg mais bu fekkoon temps bi mu bëreeg Issa Pouye laax ay ñooñu noonu ay Issa Pouye ay bo ay Boy Sey ay ko mënul deme noonu mënul demee noonu donc tey Tapha daal li may wax na assuré combat bi te bàyyi xel na bawal bawal yëpp a ngi ci ginnaawam ñëpp a ngi ci ginnaawam nag di jàpp ko dafa sonal na bawal bawal yi mm, merci beaucoup motax tax muy nekk combat bu doy war combat bu metti bu metti ngi nonu dafa nak mer moomu na nga ko denc xam foko ko way waaye na ko delo ginaaw ken du mer di ànd xel bu ko indaale ci làmba ji non non non waru ko indaale tay ñu ne moy combat jank c'est normal parce que ñom ñaar mo suñu mosuñu mo suñu laale te ama bo xolé te boo xoolee ëmb bëri nag euh, bëri nak champion nek ci làmba ji yëpp tafaati nak mom kenn dong la ci bëreegul muy Balla ak bombarde ama nag bëri naag Modou Lo bëri naag Balla Gaye bëri naag Bombardier bëri naag ñëpp rek la dese koo xam ne bëreewul ak moom ñii mu daan leen ñii daan ko Tapha Tine nag moom Bombardier la fi bëreel ak Balla Gaye ama bëri naag Gris Bordeaux aussi moom Tapha bëriwul ak Gris Bordeaux bëriwul ak Modou Lo bëriwul ak ak kan Lac de Guiers bëri naag Lac tey nekk na combat boo xam ne daal li mu mën a wax mooy ñu ngi waaj ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ñu ndam quoi waaw. ci bawol bawol non dafa toll ci babal bawol yi foo xam ne xam nga tey Tapha mun naa ne génération boobu ñëpp jël nañu roi bi sauf moom dèjà loolu rek loolu rek pression la ci ñun donc Tapha nañu dimbali ngir yàlla rek respecté combat bi parce que xam nañ ne am na capacité yu daan ëma waaye bu mu xeeb ëma bu mu yóbbu ay merte làmb ja na concentré wu ci làmbam xam ne làmb concentration la ak lii la sa ay nit te àndandoo di wax nga bàyyi xel ci loolu boo demee nag ba gisoo loolu nag nga jëlaat beneen beneen beneen sa beneen yoon mais làmb moom da ngay bàyyi xel nit ñi. tey di euh, technicien bu mel ni Eumeu Sène ñëpp ni champion d'Afrique daan la ci wàllu bëre tey Tapha Tine dafa war a ñëw fekk ko ci bëre wala dafa war a ñëw indi xeex. pourtant sànq bi may wax yow ci combat Modou Lo ak kii la naan mbëru bërëkkat fexeel tuuse ko. donc tey warul ñëw a ñëw rek indi bëre non non war xeex parce que làmb du bari bëre dóor la ñu wax du bëre simple euh, bëre du bëre simple mais li muy xeex yëpp tamit na garder tànk mi de wax naa ko léegi nii gam ama seen fexe ñu jaxasoo mu jàpp ngeen mu tafa tafa du jàpp wala mu song ko ñaar yooyu moom ama moom leneen lu muy uti tamit loolu xam naa ne mu ngi ci moom waaw parce que gis na ne tafa Balla dafa song ci tànk yi def ko daan Ama Balla dafa song ci tànk yi def ko daan <laughs> nga ko riñaan ñu voilà <laughs> donc tey moom itam <laughs> loolu mu ngi ci xelam waaye ama tamit jàppal ne loolu tamit ñu xam nañ ko de xam nañ ko te ñoo ngi ciy liggéey quoi Tapha tamit sortie yu mujj yëpp day gas tànk bi ci suuf rek di direeku di waaw xam nga Tapha tey depuis mu bëree ci kalaaf bi pare euh, da da dafa ñëw seet si mu ñu waxtaan man ak moom gis nga combat yooyu daaw leen gis ma ci ma ciy bokk mais depuis mu ñëwé wax ma man ma xol ni muy bëré boy, ne ko nag booy yow da nga ndjol te mbeur mu ndjol say bo sigé taxaw di bëré mbeur mu gatt su di la song si ngay flexioné ba koy téye mu sa mu sa tank yi di dox top gaay yi macha bi nga am mbeur bo écrase ci kanamam dox ku top ko saway dina la abal fofu c'est parce que ne nag depuis mu commencé def loolu ba léegi nii gis naa ne ay combat mi ngi koy assuré quoi mi ngi ciy gis résultat donc dañu koy ñaan yàlla rek mu lafal ko cat quoi. waaw mën a jeexee ci kaw. ah si mën a jeexee ci kaw xam nga ama ama mbaru mbëru xeexkat la ama dafay xeex mais gëw ma ne combat bi ama dina taxaw ne day xeex non gëw ma loolu. man li ma gëm mooy ama ah, bëre lay indi lay gën a euh, favoriser lay gën a favoriser que ay xeex yooyu noonu parce que mënoo nit waa ji sut la peut-être doo ko jot ama xeexam laaw lay def. laaw lay def ñun xam nañ la laaw lay def parce que ba combat bi muy mujjee bëri ay laaw la fa sànni donc tey muy censé di sànni ay directé en tout cas làmba jaa ngi noonu ama daal xeebuñu la xam nañ ne champion la xam nañ ne mën nga ñu daan parce que man géewal naa la xam naa la bu baax waaye jàppal ne daal ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla may ñu daam sa kaw quoi waaw le douze incha allah looy wax ci ETDR Média xanaa mu nekk chaîne boo xam ne gis naa ne taay maa ngi koy suivre sorties yi gars yi def maa ngi gis euh, ne vraiment mu ngi am solo trop. yow tamit gis nañ ne farlu nga gis nañ ne ay interview yu am solo ngay def question yi ngay posé rek da ngay xam ne yow métier mi yaa ngi ci dama lay ñaanal yàlla ne mu gën la yokk gën la suturaal parce que tey yaa ngi ci yoon bi naxuma la nag dajewuma tamit quoi dama gis ne question yi ngay posé xam topp nga lam xam nga lam quoi ay question yu pertinente ngay posé. kon dama lay ñaan yàlla lafal la cat rek te jubale la ak sa patron yàlla dimbal leen ba fi ngeen bëgg a àgg ngeen dem sax ba yore télé pourquoi pas yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def jërëjëf maa ngi kontaan ci Sénégal yi maa ngi wax ne nag làmb yi taxaw nii parce que ñetti dimanche ngi làmb yi dafa tegaloo ku bëggut kon làmb ku moom euh, euh, namoon làmb moom di nga man mandi làmb surtout ci combat yu taxaw combat yu taxaw moom dafay combat yoo xam ne combat yu neex lañu Modou Lo Ama ba baca Tapha Tine ba ba a baca Tapha Siteu Lac de Guiers donc tey maa ngi maa tamit aussi tamit quoi dañ ca am ci combat yooyu noonu dañ ca am bés muy bési Moustapha Gueye nga xam sama grand frère la ñoo bokkoon nekk écurie carrière am yaakaar naa ànd nañ ci lu bari mu bégal ay supporters yu bëree bëri mbër yu bëri tey dugg ci làmba ji nii grâce à Tapha Gueye moo tax ñu dugg ci donc tey tamit vraiment vraiment maa ngi ñaan yàlla ñëpp mobiliser bu derrière moom ñu ñëw def bés bu rafet mbër yi bëree bëre bu neex combat bi ak ci jàmm ku nekk ñibbi sa jàmm sa kër ci jàmm supporters yi tamit ñu bàyyi xeex yeeg histoire yi parce que loolu neexalul làmb sa mbër bu daanu da ngay sportif nga ànd ak moom dem ñibbi xa ñaan ko ñaanal ko yàlla beneen yoon bu bëree mu daan bu daanee tamit nga sibile te bañ yàqal nit ñi bañ a gaañ nit ñi parce que sport du du ay histoire du ay xuloo sport day boole mais warul taqale wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf ETDR établissement Touba Darou Rahman de entreprise bu mag bu yëngu ci walu BTP travaux de bâtiment génie civil manam lepp lu jëm ci walum tabax kër réhabilité wala réfectionné dañu ci taxaw ba mu établissement Touba Darou Rahman su la neexee mën nañ la jox amna gros œuvre ak second œuvre gros œuvre moy liko dalé ci fondation élevé tabax xuule ak raax ci second œuvre bi nak ci ngeen di électricité ak plomberie ETDR amna ñu ay boutique

établissement Touba Darou Rahman ñi ngi cité Fadia. villa numéro 259. wala ngeen 77. 575 50 25. 33 824 57 43. Amnon et mail itamit boo ni